Karim Wade parce que le PDS toujours ils disent Karim Wade mooy suñu candidat pour l'instant ñëwagul war naa kaaw ñëw nag pour wax ak Sénégalais yi ne dafa bëgg a nekk candidat parce que gis nga l'imprégnation euh, sociologique elle est importante ci ku bëgg a euh, jot jël réew mi Sénégalais yi yëg ne yaa ngi seen biir seen soxla pare nga pour taxaw ci plus ñuy avancé plus muy am désaffection par rapport ak lu mel noonu est ce que moom lu mu bëgg est-ce que dafa nekk dans un calcul politique ba tax mu nekk situation boo xam ne da dem ba peut-être du mën a nekk est-ce que PDS am nañ beneen candidat bu dul Karim Wade je ne le pense pas qu'est-ce qui va se passer dans une hypothèse où ñëw na même bokk na nekk candidat et que peut-être les circonstances font que parce que waajalul boppam teel que résultat yi bañ a euh, yegg si fa mu bëgg a yegg si mu ne ah lan moo fi sës je pense que entre certaines postures wala certaines alliances à gauche Abdoulaye Wade préférerait que sa famille se retrouve est-ce qu'il va le faire avant est-ce qu'il va le faire pendant ou après c'est la question à laquelle j'ai pas encore de réponse mais j'attends dans une semaine pour te répondre